ci nekk ci turam ak ci santam nuyoo bii ma ci jiital ki nga xam ni moom mooy suma xarit di parrain keroog bi nga xam ni mooy làmb ji ma def keroog muy Siré Dia DG groupe La Poste ma koy gërëm di ko sant parce que ku nekk gis na ni keroog Siré def na ci am solo ba làmb ji vraiment yàlla def ci jàmm. parce que ñun nag dañoo am habitude lu ñu nit defar rek koy wax jërëjëf bu ma jógee ci loolu nag damay gërëm mbokk Thiès di gërëm journaliste yi di gërëm la presse di gërëm tamit groupe Futurs Médias mais surtout di gërëm di Diakhaté production di gërëm les lutteurs di gërëm les promoteurs mais surtout nak di gërëm la population thiessoise dans un cadre purement général je veux dire la population sénégalaise parce que à chaque fois que le besoin se fait sentir si di jaxate di organiser gala de lutte jog ngeen ngeen ñew jàppale vraiment ba affaire bi am succès yu am solo te yeen bu mbir mi demee ba egg foofu rek population bi la kon nak yeen wa Thiès si di jaxate ngi leen di gërëm di leen sant mais surtout di gërëm waa Sénégal yëpp may gërëm tamit ñi nga xam ni ñoom ñooy tambour major yi ak ñi nga xam ni ñooy woykat yi di gërëm tamit ñi nga xam ni ñoom ñooy sumay xarit yi may jàppale guddi ak bëccëg suba ak ngoon ci liggéey bi ba liggéey bi egg fii wante nag gaa yi lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole tey jii nekk al bis boo xam ne tey jii dafa nekk bis bu mag ñu war a def signature contrat bi ci face à face su drapeau PSE drapeau bii ñu war a def nag parrain bi di suma xarit di kenn ci man ñu fekk ko fële nga xam ne moom mooy dëkkam di Fatick mu defal ñu fa teraanga yu am solo ñu fekkaat ko biir Dakar mu dooleeti teraanga yi. tey mu ni ma Sidi Diakhaté non seulement at mu jot dama la daan gunge tamit ci say làmb mais damaa bëgg ren dans le cadre du PSE drapeau boo xam ni ñu ngi koy defe Thiès vraiment maa ngi gërëm kooku moom mooy le ministre monsieur Cheikh Kanté di Baye Fallou Macky Sall waa Thiès na ngeen xam ni tey bis bii su demee ba lii mën a am c'est grâce au ministre Cheikh Kanté Cheikh Kanté nag dama koy defal mention boo xam ne mention bu spéciale la mais surtout di ko defal soxnaam madame Kanté Ami Diawara nit nag su santul nit du sant yàlla suñu borom moo tax tey jii mbir mi yëpp bu demee ba egg fii c'est parce que Pape la mo nekkon ci suñu digënté ak mom boole ñu ak Cheikh Kanté ñuy àndandoo mom ba légui Pape Kam Pape Lam di suma xarit tok nii ci kaw Pape Lam jërëjëf ma ngi lay gërëmaat di la santati Pape Lam nga xam lutteur yi na nga xam ni promoteur yu Thiès yi na nga xam ni manager Thiès yi na nga xam ni public bu Thiès bi gërëm nañ la sant nañ la te buñ la gërëmee c'est parce que sa patron sa kilifa sa xarit moom mooy le ministre Cheikh moom moo waral loolu yëpp moo a am parce que doole jën dox la tey jii nag ma am mbégte trop Cheikh ni ma monsieur le ministre Cheikh Kanté ni ma Sidi Diakhaté man maay présider sama bopp lamb ji bu sooba yàlla dimanche avec une forte délégation d'autorité xarit am di jàmm ñoom ñëpp lay àndal bu dimanche incha allah ñuy yendu si Thiès monsieur le ministre Sidi Diakhaté ngi lay gërëm di la sant tey jii Pape Lam dina lim léegi délégation bu mag bi nga xam ni président conseil régional bi moo ko jiite ànd ak ñi mu àndal ñep bu soobee yalla bu fa am bii ñu jëlee cadeau di ngeen xam délégation bi Cheikh yónnee fi ñu délégation bu mag la. monsieur le président bu ngeen demee ngeen ni le ministre Cheikh Kanté Thiès kontaan nañu su ngeen demee ngeen ni le ministre Cheikh Kanté ci Sidi Diakhaté kontaan na ñoo ngi gërëm tamit ki nga xam ni mooy le président Macky Sall man li may wax nii. su ma ko waxee da ngay gis ne population Thiès bi dañoo ànd ak ci li may parce que ñoom lépp lu si di jaxate def rek dañ ma ciy jàppale suba ak ngoon te tey jii bu ñu demee ba mën a réussir lii c'est parce que Cheikh Kanté moom moo ci jàppale te ko wax Cheikh Kanté wax na Macky Sall mi nga xam ne mooy kii di monsieur le président de la République maa ngi lay gërëm di la sant démb barki démb le ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ma koy gërëm bu baax di ko sant daf ma recevoir fële ci Gossas ci dëkkam ñu yéenandoo añandoo ak waa Gossas yëpp mu recevoir ma defal ma teraanga yi mu am solo monsieur le premier ministre maa ngi lay gërëm di la sant. di gërëm aussi le DAGE de la présidence monsieur Abdoulaye Ndour mon ami et frère monsieur le DAGE Sidi Diakhaté ngi lay remercier bu baax a baax a baax a baax. mom neena ma Sidi jaxade lépp lo xam ne dafa soxal Cheikh Kanté lépp lo xam ne dafa soxal ki nga xam mom moy son excellence Macky Sall daf may soxal loolu mo waral tay ji ñu jàpp ci bis bi moom mat sëkk monsieur le DAGE maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm notre frère pap Mayel Diop directeur des aéroports du Sénégal monsieur pap Mayel Diop ma ngi lay gërëm ak di la sant di gërëm ki nga xam moy Cheikh Ahmed Tidiane Ba mom mi nga xam moy directeur général des impôts et domaines di ko xam suñu gorolo ndax di doomu Thiès lay sëyal te moom Cheikh Ahmed Tidiane ku nekk xam ne lii sa Malick si bii la jàngee ci ba ba am tey bagam bi monsieur le Cheikh Ahmed Tidiane ba maa ngi lay gërëmaat di la santaat ak mu jot li may gunge samay làmb di ma jàppale bu baax a baax a baax. maa ngi sant bu baax suma xarit le promoteur immobilier Modou Khoule di ko gërëm di ko sant di gërëm. le PDG l' administrateur de la province assurance monsieur Mamour Thior gars yi maa ngi leen di xamal ni képp ku bëgg assurance bu baax bëgg assurance boo xam ni chaque fois ñaanuñu ko mais boo amee problème boo fay lijjanti dafay gaaw a réglé wu pense à la prévoyance assurance monsieur Mamour Thior maa ngi lay gërëm di la sant. di wax président de la République sa arène bii nga def pour 32 milliards la nga xam ne ñii ma lay wax ñëpp dañ cee jàpp bu baax moo tax ñuy gunge Sidi Diakhaté ah gars yi nag bu ngeen bëggee dégg dëgg na ngeen xam ne nag gis ngeen fi banderole Sococim yu bari parce que Sococim ay atta ngi nii moom mooy sama sponsor leader kan moo nekk ci kanam monsieur Youga Sow Youga Sow Sidi Diakhaté ngi lay remercier bu baax a baax a baax yàlla monsieur le directeur général de la maa ngi leen remercier di wax gars yi bâtiment bu ngeen gis mu daanu de xam leen ni di si ciment bu wóor bu ngeen gis da ngeen xam ni Sococim la te Sococim moo tabax Sénégal ba ngeen juddoogul ba léegi Sococim moo fi ne di fi nekkaat di fi nekkaat kon nag Sococim rek la te bu ngeen bëggee def tabax. tabax boo xam ni li ngeen di dépenser ci ciment du bari te day dëgër am garanti penser à la Sococim et en pensant à la xam ne ñoo ngi remercier le PDG monsieur Ndiaga Sow gars yi maa ngi leen di waxaat nag. ni leen nag am na sama benn waay boo xam ne c'est l'homme de kooku duñ ko tudd li may lamet Samba di wax sa waay moom jëfam rëy na mais bëggul sax léeg-léeg koy tudd lay wax rek gërëmal na euh, structure bi muy EDKOL gars yi EDKOL mooy structure boo xam ne mooy jaay essence boo bëggee lekk mburu muy neex comme ni ko Lamine di waxee di xoyom xoyom yi 24 heures sur 24 muy tàng jëpp pense à EDK boo bëggee am rendez yu am solo demal ci restaurant ba di nga foj am xéewal yu am solo boo bëggee topp yàlla suñu borom. na nga dem jàkka yoo xam ne dañ koo mokkate mu nooyu népp di nga julli julli ko xamni ne koy teelu parce que fofu amul benn vraiment maa ngi gërëm ci sa jàpp de rawati na nak di leen wax ni personnel bo xamni bu qualifié mo fa ne d'ailleurs ku nekk xam na ni structure yi di Diakhaté ki yor organisation bi muy Lamine Mbow mi fofu foofu moom di fa liggéey donc vraiment may gërëmaat EDK bu baax ba dem ba ñëwé Thiès jappalé nañu bu baax jappalé wa dëkk bi fexe na ba nga xam ni EDK jëlul benn koo xam ni dafa jóge feneen ñëw fii ñi ñu jël ñëpp ay doomu Thiès lañu kon nag PDG EDK ak képp koo xam ni moo nekk ci direction ba si di jaxatee ngi leen di gërëm di leen sant mbokk maa ngi leen di wax nag képp koo xam ni bëgg nga boo solee yére yu set mu rafet bëgg nga boo balee sa kër mu leer naa ni karo yi leer naa ni boo bëgg bëgg nga boo menacé benn yoo du am microbe du fa jigee

boo bëggee nag lépp loo laaj sa borom kër mu jox la ko baye boo nga jël rek mera bi di ko bombe say bët mu weex tàll alaaji bi daal di kontaan bu fekkee dafa nekk aawo boo dee laaj boo dee jël madaar bi na a xam ni day waxuma doo gaa doo am ñaareel de mais doo du gaaw te waa ji dina ko waajaat da lay tàggoo tàggoo tàggoo ba am sa ndigal soog a takki kon mera gaa yi mooy waaja mbokk maa ngi leen di xamal ni nag bu leen fàtte ni Vera léegi dafa am ba pare nag aussi madaaru bi am nag madaaru pëndox lépp di ngeen gis léegi ci kanam ñu may leen ci ay échantillon yoo xam ne yéen mbër yi di ngeen xam ne bu ngeen bëggee blouson yi ngeen sol gaaw a set rek jël xalaat leen madaar maa ngi gërëm nag di sant bu baax sama xarit muy koo xam ni kenn la ci man te lépp lu société bi am ñu ngi koy delloowaat ci réew mi kooku moom mooy la LONASE monsieur Amadou Samba Kane maa ngi koy gërëm di ko sant maire de la commune de Amadou Ounaré maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax a baax di ko wax ni Sidi Diakhaté maa ngi gërëm El Hadj Malick Mbaye bu baax di gërëm képp koo xam ne mi ngi nekk ci LONASE monsieur le directeur général de la LONASE maa ngi wax sa président de la yokkal sa doole parce que yow su sa doole yokkoo ñëpp dinañ ko sentir ndax bénéfice bi yaa ngi koy delloo waat ci biir nit ñi vraiment nag gars yi ah ku wàllu yow nag sa dëkk daa tëbbul gars yi dafa am benn dëwlin bu xaw ci jamono dëwlin boobu boo ko boo soloo ba jekk jarul sax ngay taxaw ci seetu bi jëlal butéelu domi mi nga teg ko sa kanam rek mu wax la ni nga mel boo waree jubanti mbaxane mi defaraat ko bu mu gën a nice comme nii da ngay jël rek mat moom mu wan la ko bu dee da koo bëgg a yóbbu côté bi ci des aussi dala koy wan bu dee da nga koo bëgg a def El Hadj Abdou Aziz Mbaye nii rek dala koy wan ba tey dawlin boobu mooy dawlin bu wóor ban dawlin la ban dawlin la ban dawlin la ban dawlin la sa borom kër boo ko laajee mu gaaw jox la te du la laajaat weccet wi jëlal jëwriñ Jador di ko saafara affaire di ko toggale jën yi vraiment mooy affaire te li gën a wóor mooy ki moom Jador day sama xarit di sama doomu ndey di ko xam ni barki dem rek dañ leen jalooreen ci bi am muy Abdoul Aziz Ndiaye El Hadj Abdoul Aziz Al Amin ah El Hadj Abdoul Mbaye maa ngi lay ni sa xarit boobu sa turandoo boobu ah. def na mbir de nee na ma Sidi Diakhaté l'ensemble de vos combats yi ngay def durant cette année j'adore day ñëw di la gunge ba pare di ma jàppale El Hadj Abdou Mbaye El Hadj Abdou Aziz maa ngi lay wax ni yow ak Lamine Samba. fu ngeen gisee ki nga xam ne mooy Abdou Aziz Ndiaye ne ko Sidi Diakhaté kontaan waa Thiès kontaan naa j'adore vraiment numbu na tëkkale mais nous demandoo kon nag gars yi avec j'adore jusqu'à la mort j'adore j'adore jusqu'à la mort j'adore j'adore jusqu'à la mort suma xarit di suma doomu ndey moo tax tey jii lii nga xam ne tey yii ñun dañ koo man ci animation bi di ko def ak aussi ci wàllu marketing bi ak commercial bi non lépp bu la koy amoon da koy gërëma tey loolu yëpp ñu sundur laa koy delloo El Hadj Abdou Aziz El Hadj Abdou Aziz na nga xam ni vraiment Sidi Diakhaté ñu ngi gërëm le PDG Youssou Ndour di gërëm nag képp koo xam ne nag mu ngi nekk ci groupe bi ba ci vigile yi vraiment li nga xam ne liggéey na ko Lamine li nga xam ne groupe bi na ko tey jii di promotion ji liggéey ah dëgg naa am ci làmb de yéen xamul leen lu dul liggéey ba pare ku leen jox mission pour liggéey bi muy seen kilifa yi da ngeen koy def ba mat sëkk vraiment gis ngeen kon ni mu demee nii jaxate ko ba yére ji vraiment mi ngi yëngal Sénégal ku nekk di wax ni ko boo jàppatee mbër gong yi joon bàyyi ko mooy borom bis bii ñu war a def lambam le 4 muy dimanche tey mais non dimanche bii la fii ci stade Maniass Marie diggante Diom Thierry le champion qu'on ne présente plus lui a fait ses preuves à Kayar à Khombol def ko fi nga xam mooy Mbour def ko à Todam Diom Thierry vraiment tot Dakar Diom Thierry si li nga xam ne kontaan na ci yow maa ngi gërëm tonnerre di ko féliciter parce que démb ku nekk gis nañu tey jiitu guddi bu ngeen ñëwee di ngeen seetaan ay di boo xam ne dara woon na trop ay gars yi bu mag ba nag beneen a boy séeréer contre boy kenn la ci ñun le président Macky Sall est un visionnaire pourquoi un visionnaire parce que bi nga xamee ni tey jii mi ngi tabax arène 32 milliards bi nga xamee ni tey jii autoroute Ila Touba mi ngi jàll biir Thiès di dem Touba bi nga xamee ni ki li nga xam ne mooy kër Momar Sarr 3 ñu ngi koy def fële pour ndox mi di dootul manqué di fii bi nga xamee ni université bii def nañ ko fi lien de projet mën a jàng loolu yëpp dans le cadre du PSE mu ne loolu nag ki ko mën a wasaare ci biir Sénégal ki mën a wane samay mbir ci li ma liggéey parce que yaakaar naa ni communication bi dafa desoon loolu kenn mënu ko ku dul ki nga xam ne moom mooy Baye Fallou Macky Sall bi di Cheikh Kanté monsieur Cheikh Kanté nga xam ni pour Thiès rek la te ñu war a def une tournée man ak yow à travers les Sénégal dëkk bu ci dem ñu wane liggéey bi nga xam ne moom la PSE def moom la président Macky Sall def ñu fas yéene ànd ko defandoo ah na nga xam ne président visionnaire la xam na kan moo man xam na ki nga xam ne tey jii ku ko gëm la xam na ki nga xam ne du ko nax guddi ak bëccëg vraiment kooku bàyyi faalam bi moom mooy Cheikh Kanté Cheikh Kanté maa ngi lay gërëm di la Samba Cheikh Kanté. nit ku baax la Cheikh moi mooy le décanteur l'homme à la passe facile et au démarrage rapide Waouh. l'homme à la passe facile et au démarrage rapide mene le fekk ñu delloo ko bal bi Pape Cheikh la Lamine dee delloo bal bloqué Lamine Samba maa ngi gërëm di sant bu baax a baax a baax a baax madame Kanté di sant waa Fatick yi wante nag di gërëm aussi le ministre Matar Ba Matar Ba. yàgg na di gërëm di sant aussi waykat yi bu baax a baax a baax nag di gërëm tamit Lat bi nga xam nekk cité Senghor te war a daje ak Iba Diamniadio di gërëm tamit vraiment Abdou Lo bi nga xam ni moo war a daje tamit ana Abdou Lo Abdou Lo l'ensemble des responsables rawatina nag Abdou Mbow le vice président di gërëm monsieur Augustin Tine mais di gërëm képp koo xam ne aussi suma xarit nga te nekk Thiès de te di ñu jàppale ci lamb de di ñu ànd ak suba am ngoon mbokk vraiment leen di gërëm di leen sant di di jox de la délégation wax après la ñu mais di gërëm l' ensemble des responsables rawatina nag Abdou euh, Mbow le vice président di gërëm monsieur Augustin Tine mais di gërëm képp koo xam ne aussi suma xarit nga te nekk Thiès kii te di ñu jàppale ci lamb ji di ñu ànd ak suma àngoor mbokk Thiès vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yoon di sant suñu ñaari waajur di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. yal nañu yàlla muy gudd fan ak wér yal nañu yàlla ci seytaane musiba ak teebu ñaaw dinaa loolu nag man sama wax day gàtt kii xam nga lu ma séqati suuf ma ci bi ci loolu am lu may wax ak man sama wax bu sama wax day waaw yow li nga wax yow da ngay baax bala nga incha allah nga ñëw jël tànk bi bu ko jëlee di nga daj lu métti yaa da ngay yooru doo taxaw nga xeex du la fay xam nga ñu war a digg spectateurs yi ngay nekk fii di yooru taxaw ñu bëri xeex ah damay jël tànk yow da nga sa ñaawa bi nga mel ni mag nga mel ni ancien canara nii bu ma ko ko laala waay ci ko ko maanaam yow moom une minute la boo déggee sa bopp dafa lay suba bu njëkk bismillah inna waliyallah maa ngi nuyu ñu teew ñëpp ñu sant yàlla bu baax a baax di nuyu waa Munafaal yëpp di nuyu waa Thiès yëpp ak Serigne Touba maa ngi woo Baye Fall ci sama gars yëpp jàpp si bu baax a baax a baax a baax combat bi sama combat la ak mangi wo Jabel mangi wo si bo Mourou Ndongo maa ngi woo Dina fal kep ki jàpp si ba a sira si mangi wo ba lay woo baax a baax si Kambaare ak Serigne Touba kii laa tax rek boo ko defee Touba dafay xamé ak Serigne Touba parce ko dama fi dugg sama pa passé dem ni def mo ko ñàkkaloo ak ak combat. ak combat Dóor Maaw yow mbëru yooyu wala lay faxal dañuy dëpp man du ma di fi li nga li nga li nga dama si wuyu si ba mu mat da ngay sa bopp lay remercier dama ne trop trop di wo per if 2006 man do bu baax dañ la mereka heure bo amé ko ba do ko ci car wax ma ko ba jël per ndiasa ka di ko wo di wo per alsando ne lay jappal ci ko ma fa di wo wa tay ki ni per per teura ñay ni mo daf ma ne dafa tagga samay ma mbay jender abdourahmane jaay fara ñoo ñoo samay ma ci ma ci kala jappé mu ji waaw neena suma jappé mu jeex lolou ak douce bi ak inshallah mo maa ngi woo ñëpp nag jàppale ci combat baax a baax a na Serigne Touba Mbacke li nga wax boo ko dëggalee rek comme nawet du yàgg wala ko ñaar ok. yow kaay kaay jël leen suñu avance. ok jërëjëf. parce que dem Kayar lay jógee mu génne Janeer alxuraan te réew mi mooy maanaam bëri xëy na bëri naa kenn xam nga ki ma bëgg a taw yow yaa mën a ñëw yow mën a jàpp daan bu neex daan xam naa ne bu baax a baax a baax a baax xamoo bëri xamoo xeex xam nga di woote nag di woo ñu may jàppale di woo ñu may jàppale ñu may jàppale xam nga maa ngi sant santaat bu baax a baax ay ñoom Modou Fall Serigne Dia ñoom ñëpp waa Thiès Baratal maa ngi koy woo baax sama baax ba xam nga di nuyu waa Thiès ñëpp gis naa leen ma jàppale xam nga amu seen tey su ma tee dafa la bu baax la tax insha Allah bi ñu doon ferbele rek mu jotaat insha Allah rabbi di seen son nag ci jox de baax a baax a baax amuñ payam jërëjëf jërëjëf muy Babacar Pascal Dione di un homme loyal un homme engagé mais aussi en homme fidèle et de principe. Babacar Pascal Dione président mouvement dooleel Macky am taxawaay boo xam ne ci biir la indi réconcilier le président de la République à la population thiessoise am action yi mu posé tey jii nag mu wuy si Sidi Diakhaté ànd ak ki nga docteur Cheikh Kanté docteur Chakante, coordinateur des mouvements il nga capable soutenir le président de la République docteur Chakante, unificateur mais docteur Chakante, un homme loyal et engagé Il nit fait pas blâme. il faut le président du conseil départemental de Fatick Omar Sen. Nous sommes ak ñi nga xam nous la àndal un homme bi nga xam ni lépp lu mu def pour Thiès lépp lu mu def pour président la république moo bëgg a jël kàddu pourquoi wane ni moom li ko ñor du Thiès rek waaye Thiès ak beneen pour Sénégal da ci dugal loxoom mooy dooleel Macky kon monsieur le président du mouvement dooleel Macky ñu ngi lay jox kàddu bi asalaamaaleykum maa ngi len di nuyu yéen ñëpp kenn ku nek ak turam ak santam di am mbégte lool teew fii tey Alaaji Abdoulaye Si Mbaye maa ngi lay gërem di la sant bu baax sama ni nijaay Thierno Ndiaye maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu sama xarit Lamine Samba di féliciter sunu xarit di bi nga xam ne ñu ngi koy def ci Sénégal xale la boo xam ni bu am jom la wax naa bëri ci démb que Youssou est un exemple d'engagement et de persévérance loolu royukaay la ci xale yëpp ñu ngi dugal loxo fu nekk bis bii nag bis bu am solo la muy signature de contrat lamb joo xam ni sama xarit si bi jaxate l'homme des grands événements de Thiès, l'organisateur des manifestations importantes de Thiès qui nga xam Thiès dafa yëkkati làmb la ko ci loxoom bu sargal waa Thiès yëpp yëkkati Thiès jëmale ko kanam kooku pour organisé la joo xam daf ko de sama xarit sama wóolare monsieur le ministre le docteur Cheikh Kanté chargé du PSE wax naa barki démb ni Cheikh Kanté booy lim liggéeykatu Sénégal mënoo lim kenn ko ñu dënk ko boîte boo xam ni boîte bu am solo la muy port mu jëmale ko te kanam président woo ko jox ko le ministère chargé du suivi du PSE xam ngeen ni PSE projet Macky Sall yëpp ci PSE lañ ko doxeñ dégg ko ko loolu doon lu am solo mu doon sunu xarit di sunu wëllëre loolu tax fii pour dal ko pour manifester sama solidarité te maa ngi woo nag l'ensemble des militants di mouvement Dolil Macky muy Thiès muy Caajaay muy feneen ñoom ñëpp dañuy teew ci lamb ji ñu ànd ak le ministre Cheikh Kanté ànd ak Sidi Diakhaté ànd ak toute la délégation ministérielle bi war a sargal ko won ko ni sunu xarit nga sunu wëlale nga yooyu kàddu laa bëggoon a yëkkati di leen santaat di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla nag mbër yi que les meilleurs gagnent que les meilleurs gagnent yan leen yàlla may ndam ak leen di gën sant bu baax jërë jëf